est-ce comprendre nga te li may wax ni bu len ko dag da ngeen koy tek intégralité tege fi ma waxee ba fi ma egsi ndax li nga may wax yëgu ma ko yaa lu tax nga bëgg ma wax ci fu la bobu tank nit amuñu ko yéen yene dugalaate tu dëgg parce que man Aïssatou Diop Fall ñu yoon duñu ñu lan mo tax nga japp ni man war naa ko war a défendre ci lo xamanteni ni non mais on parle de man moi man je suis pas là pour di wax pour kenn nit je je parle en parabole jigéen ñep la fi nekkal surtout ñi nga xam ñoma yëkëti tay duma nangu ngay focus ci ay affaire ay Diop Fall pour yàq doo yi may def tey voilà Aïssatou Diop Fall yëkkatiwuma far bu moom waxi noppi waaw waaw man nag lii ma dajale fii yëpp defuñu ci waaw kay donc lu sama ci ñoom voilà euh, message bi may lancé mooy euh, di ñaanal ñi nga xamante ne ñoo nekk fii ci biir wax dëgg yàlla ñu génn ba mun a fekk seen ay njaboot fépp fi nga xamante ne euh, waa Women Power dinañ fa dem ci mois de mars bi fas yéene dimbali prisonnières yi dañ leen di euh, wax dëgg yàlla massawu encore di ñaax jigéen ñi waaw ndax euh, wax dëgg yàlla égalité équité moo ko gën te loolu la ñu soxla tey bu ñu jëlee jigéen jox la micro bi nga nga nga defee yëpp yow boo defaree mu rafet mais boo ñaawalee day ñaaw donc donc nañu nañu nañu jéem a gën a suudewuwaat joxante waat loxo xamaat ni que ñun jigéen ñi ñun ñooy société te ñun ñoo mën a defar voilà. très important merci beaucoup.